waaye du nuyu mbooleem buntu kër yi Serigne yi di ko tàmbalee nag ci buntu kër Cheikh Abdoul jaar ci Serigne Sidi mi nga xam ne mooy jëwriñu kër ga wàcc si ci buntu kër Cheikh Salihu Mbacke jaar ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër googu ak mbooleem buntu kër yi nga xam ne ñoo seq Serigne Touba rawatina njabootu Serigne Souhaïbou mbokk yi ñu santaat yàlla mi nga xam ne mayaat nañu tey jii ñu fas yéene toogaat e, fàttalikuwaat lenn ci jikkoy nitu yàlla ku mag fàttalikuwaat lenn ci jikkoy taalibib Sëriñ Tuubaa fàttalikuwaat lenn ci xelum nit koo xam ne sun borom séddee woon na ko nit ñi mu leen di yar kooku nag di Sëriñ Tuubaa Cheikh Saalihu Mbàkke yal na yàlla dolli ngërëmam ci moom te def ko ci mbooleem njabootuk Sëriñ Tuubaa gépp mbokk yi ñu toogaat ak sëriñ Amsatul Xadim mu Cheikh Abdoul Ahad di ko ñaanal sun borom mu may ko fan wu gudd ànd ko wér leeralal ko yoon wii mu teg tànkam ba mu àgg ca dëkk ba mu jëm te mucc ci mbooleem dog yi ak pakk yi ci barke Cheikhul Xadim mbokk yi xam nga ne Cheikh Saliou Mbacké mi ngi feeñoon jamono ñaar fukki fan ak ñett ci weeru septembre ci atum 1915 dëppoo woon ak fukki fan ak ñeent ci weeru diggu tabaski muy sol ijja ci Euh, mille trois cent euh, trente trois ci njaareem bis boobu nag moo agsi waat ngir ñu fàttaliku waat jëmmam ji ndax daana wax ne bis bu nit génnee àdduna eh, kenn du ko ca fàttaliku moo tax ñu tànnaat bis bi mu feeñ jamono di ko ci fàttalikuwaat toog ak taalibeem bi nga xam ne moo ko yar di doomam eh, ñu bëgg nag tey ji waxtaanee rek ci xel mu rafetum Serigne saaliwu ak nim ko yore woon jamono mën a jaxasoo ak taalibe Serigne Touba yi mën a jaxasoo ak jullit yi kenn ku nekk am sa cër bopp mën a jaxasoo sax ak ngóor gi ak na muy ànd ñoom waaye nag mën a seere population bi ba yent yooyu muy sàmm dara du ci ruur moroom ji ci xel mu rafet ak xam àdduna ak sëriñ Saaliwu ñu bàyyee kàddu gi ak sëriñ Amsatul Xadim aouzu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani seydina wa mawlana muhammadul makin wa ala alihi wa sahbihi sawi radwani wa tamkin ama baad sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu nuyu bokk yi yëpp rawatina nag taalibe murid yi dil siwaat tey jii ci kàddu yu gàtt ci jëmm ji ñuy fàttaliku mooy sëriñ Saalix nga xam ne mi ngi gane woon àdduna fukki fan ak ñeent ci weer bii digg tabaski gane àdduna sëriñ Saalix nag moom kuñu ñu waayal la koo xam ne léppi mbaax daf ko ëndaale léppi njub daf ko ëndaale léppi defar da ko ëndaale ndax turam sax ci defare la la jóge saalix as saalix mu nekk saalix ba nekk nekk muslix defaru ba noppi di defare defar ñu bari jëmm joo xam ni boo boo gisee jëmm ji rek mën nga caa soppi ku defar ndax jege mu jege suñu borom ak ragal gim ko ragal nga xam ni ñu mel noonu seeni man màndarga ci seen day ci seeni xar kanam ndax boo ko gisee rek dalay dalay dalay dolli leer dalay dolli gëm dolli ragal yàlla te mooy ni ko suñu borom message ci alxuraan ci yenn saaba yi siimaam fii wu jox min asri sujud sëñ Saliou ci ñooñu la bokk muy nit ku modeste koo xam ne boo dee seen jëmm ji ni rek dangay jàpp ne xamul ci àdduna dara waaye xam ko ba jeexal ko takk moo tax mu ba ko bàyyi adduna ne julli ci boroom rek muy nit ku yow koo xam itam mën naa jaxasoo ku ne moo xam homme d'État nga moo xam kilifa diine nga boo goo xam ne bokkuñu tariixa moo xam kilifa goo xam ne yéen bokk murit gi moo xam muy taalibe simple simple wala jullit kese kese soo jaxasoog moom ci meloom ak ci xelam mu rafet mën na laa soppi ba nga mel ni moom wala ba li bëgg ni mel nga mel ni wala nga gëm li mu gëm mm-hmm. waaw ndax su ngeen waxte su ngeen waxtaanee ci àdduna moom moo la ciy dominer su ngeen waxtaanee ci wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu yàlla moo la ciy dominer ndax ku la gën a jege yàlla gën la ko ragal gën la ko xam ndax dafa jege yàlla ragal ko moo tax mu xam mu xam mu xam mu xam borom di moytu lépp lu suñu borom di tere itam te bokk na ci ak dawul yar njabootu jàmbur bokku ci nite li muy tere njabootam mën ngaa ñëw fii def ko te yow du la ko tere ndax yilifa la te nag ak manqué mi ngi ci mu ngi tàmbali ci nga bëgg a yar koo yilifut sëñ Saaliwu bu la jabootee yilif la lam la war a wax yëpp naa la ko wax su la yilifut nag day maandu ci yow moo tax bari na i biiram yoo xam ne sax bu koy wax danaan ku bokku ci njabootam da ngay génn ndax day wax ak waa këram wax ak waa këram wax ñëpp lam leen war a wax noonu la organisé woon këram dafa mel ni lu ku yoroon ku yoroon ku yoroon état dafa mel ni ku yoroon ku yoroon ak nguur ndax ni mu nose néeg yi fu ne la fa war ne da ko fay nekk ñooy bokk boo duggee ci néeg bi ci daara ji dem dugg ci daara ji dem dugg dara du soppi fa mu war a teg kurus fa mu war a teg doj dënnu fa cafetière ba nekk fa téere ba nekk léppay niroo plan néeg itam léppay niroo ba ci jàkka ji nosu itam ni ñuy jànge ak kuréel yi suba bëccëg beeg guddi geeg yëpp ñoo koy niroole na suñu njàng alxuraan yi njàng xam na suñu liggéey bi ko organisé ba boo duggee fii jóge ci daal ji da jàpp ne fi nga jógee fi nga jógee nga duggaat léeg-léeg teg fii dara sax jàpp ne fee nekk waaw lu mu daal teg ko fii day jàpp ne fee ndax ndax niroog noonu la noose itam néeg yi te leen kon lu mel ni wayu jës bu nga xam ni néeg boo gisee daal ni ni néegi tegee nii noonu la noonu la demee noonu la ko tëralee li mu nit ña fay nekk ak kay jëwriñ ji ak kay jàngale alxuraan ak jëwriñu tool yi muy fukk daara bu ci ne fukki jëwriñ ak ñaar dafay nekk néegi itam noonu lay deme ba noppi nag euh, li mu itam ku lii lim bi noot li mu narool mooy itam fukki fukki fukki fukki dong ak ñaar ngay yor fukki waaw fukk ñaar mooy nosu bi mooy nosu la bu dong yi ëppee nga tool waaye ñaari moom mooy mooy nosu noonu la xamee àdduna noonu la mën a defaree nit noonu la mën a jubbantee nit noonu la mën a jëriñ nit ndax eh, jamono ji léegi sëñ tubaa day dajale day dajale sëñ Sall daana wax day dajale moom itam day dajale ku dajale nag bëggul ko la tasaareel bëggul ku la teqaleel hmm. moo tax yoon wi daan wax ni yoon wi génne bokku ci parce que ku baax amul lu ñuy defar ci moom ki bon sikk moom ngay taxoo ba mu baax na yow sëñ Abdou Lahad daana am ñoo xam ni mu diggée ngi nii ci la rokk ay bëkk nekk yoo xam ne eh, dañ ko daan bës soppiku bay tëdd ci kaw waaye da koy muñ ngir bëgg leen soppi moo tax boo gisee kilifa tax takkook ñenn kàccoor yi pour soppi la ndax boo bokkee fu baax say waajur am ci yow yaakaar jéem ci yow mooy dara yaakaar nag sëñ Tuubaa nga war a defaru sëñ Tuubaa ku fi ñëw da war a defar ndax ko jige ko xëcc ko ba soppi ko ci lam nekk ñoom noonu lañ mel sëñ saa itam noonu la mel noonu lay defaree nit waaye bu fekkee ne nag sabtaal ni matt ko sax nga génn ko bu yàggee doo mat hmm? yoon wi bee di yàlla bilaay bu kaay la wokk waaye bi mu wootee dana bilaay jëlaay laakin unaadi kal bilaadi indaani ma di bilaay jëlaay kon defar nit dangay ngay toléré mën a muñ waaye boo yemee ak moom rek xëtër euh, aku tàngoor doo ko defar jaboot doom ji day lu ne da koy def ci ay yërëm hmm? day dem raxas yi yërëm su mi ko solaat yeneen dem defar doomam waaye tax mu teqal doom ja te xam ne la mu ko taqal baaxut hmm? ganaar day cofi doomam waaye bu gisee pepp ma yokk da leen di xëcc andi leen pour ñu lekk sëñ Saliou nag méthode boobu lay ron noonu la daan defaree nit noonu la daan takkook nit ci gàttal mbooleem lu dik mbaax daal mbooleem lu dik yiw mbooleem eh, melo yu mat yi yëpp man gis naa ko ci moom mbooleem lu dik mat rek gis naa ko ci ci jëm ci jëm ci jëm ju tedd jooje kon nag buñ koy fàttaliku nun yañ xam ci moom mu daan ko def yañ xam ci moom mu daan ko moytu yañ xam ci moom mu daan ko wax yañ xam ci moom daaw ko nagoo déglu wala daaw ko nagoo xool nañ ne foofa tam di xool lam daan xool déglu lam daan déglu lam jëf lam daan jëf luñ ci man suñu kàttan ñu ñu ñu roy ko ca luñ ci mën ñu yéene ko xaj na buñ ko defee yàlla dimbali ñu ba suñ amul lu nu doy itam am loo xam ne ma des jàpp loo xam ne des na ci ñee na ko dañu fàtte aaya bi nu ko yàlla waxe aaya bi lay natam wa man yaxruj min baytihi muhajiran ilallaahi su ma summa yudrikul mawt faqad waqa ajru kon nag nañ yéene rek taroy luñ tëli rek buñ buñ tam itam buñ desee ci yoon wi <laughs> suñu yéene àgg na su pay ga dina ñëw loolu moom xam naa ko sëñ Saliou leen loo bëgg a laaj. jërëjëf kon mel lu jëm ci wàllu ni mu daan jaxasoo ak état. ak mm-hmm. ni ku xam sëñ Saliou ni mu a moytoo àdduna. Mm-hmm. jaxasoo ak état ci wàllu wàllu mm-hmm. xam nga ñoom dafa am nañ mel ndax sëñ Saliou wax na ko ba ku sa bàyyi dëkkee suul soo mënta suul itam war a xam da ngay dugal ci sa biir. bari na xaalis yoo xam ni ñaar da nga dégg dañ koo sàcc sëñ bi sëñ bee bëgguñu sàcc ko ndax du ko jëfandikoo te mënu ko jox kenn waaw da koy teg fële bu ko soxlawu ko jëfandikoo am na xay ci gàttal rek am na xaalis buñ ko fi joxoon ay ay jamono te nangu koo jël fu ne jaar nañ fa nangu koo jël tudd nga tur sax waaye damay bañ tudd kooka ci lañ jaar ba mu jox ko ba sëñ bi jël ko ndax kooku day taalib sëñ Tuubaa ba noppi ci bokk ci yoon wi moom lañ ko jox mu indi ko sëñ bi am kersa eh, delloo ko ndax li ko jël ci ci li ma doon wax rek ci gis nga joññe ci gi def noonu hmm? bi mu ko jëlee waaye dañoo toogub diir amul ñetti weer isuno sa naakos bi lakk mu delloowaat leen ko ki la ko jafaat ah xaalis ba mi ngi mi doon ne ay xal ci moom xamul nu mu koy def ndax mënu koo jox taalibi sëñ Tuubaa mënu koo jox jullit te mënu koo jëriñoo mu teg ko ci côté far yàlla dogal isul sa ko sa lakk ci la ko yóbbu moo tax mu ne ku sa bàyyi dëkkee suul soo mënta suul xaalis war xam ne ngay jëf ci sa biir waaw waaw te nee na xaalisu nguur gi day wàññik leer di dollik lëndëm di te àgg ci sa borom day wàññik leer <laughs> di dollik lëndëm di te àgg ci sa borom lii nag xanaa ku nit ku nit ku ne war nga ko mën a moytu sa kam lay kàttan loo xam ne mbooloo ko bokk mu dib dépasse junni bi ngay joxe dépasse wala ñaari junni yi ngay joxe dépasse sa kër boo ko doon séddee jox ki téeméer jox ki téeméer mbooloo mi du mat ndax boo joxee fukki nit junni bi dee wala ñaari junni yi dee am déet da koy def togg ñëpp bokk lekk mooy dépasse hmm? ñëpp bokk lekk waaye boo ko séddalee kër gi daj lu ñu war a tabaxee forage wàcce tabax hôpital jox la ko mel ne yow nga lekk ko est-ce que na la jëriñ am loolu yu ci biir ñoom nag nit ñi da leen a gënal taalibe yi da leen gënal si hmm? wax naa la ko budul benn wax naa la sëñ Seydou daan yaaxa yéex a jaay gerteem. am benn waay ci daaram yee moo ma ko nettali ba xam ànd ak moom andi ko mën naa waxu turam waaye jëru ko hmm? ko andi ndax daa waxtaan ak moom ne ko man damay yéex a eh, danaan yéex a jaay gerteem bu ko defee bu ñu bu ñu reposé bu ñu bu seko bi taar yi ñuy dagg xam nga dañuy dagg ay ay ay per kilo ñaari kilo ñetti kilo dañuy dagg ay ñaari kilo kilo bu ko defee nag bu bu bu état jëlee Sonaco son son Sonacos la woon li fi nekkoon nu mu tënati onkat bu onkat jëlee gerteem poids ba bañ bañ ko jaay lay jël. bu ko defee mën na faa des ñaar téeméeri bëri yoo xam ne mooy taar yi ñu doon dagg ak yi ñu sàcc hmm? boo ko defee nag su su su su su su su kii yóbboo gerteem Sonaco Sonaco onkat yóbboo gerteem xam nga boo fa loo see wax dëkk dañ xam ne ñoo ko moom. te mën nañu dem giir ko ndax daañu suñu gerte. ndax li fi li fi nguur amoon jël nañ ko ba noppi kon PC bi mooy mooy moom loolu xam nga ndax moo ko def léegi nag nee na moom danaan jeex a jaay gerte ñu bëgg ko moomale yaay ñu bëgg def poids ci sëñ bi nag bu jox sëñ bi xaalis jël seen xaalis ba indi waaj sax bëgg mu jébbul ci moom sëñ bi ne ko yow ndey sàcc ngeen ma bëgg def te loolu dama ko nangu xaalis yi taalibe yi ngeen di lagg juróom ak ñaar yi ngeen di dagg <laughs> moom ngeen ma bëgg moomale te boobu ngeen mu ko defee day sàcc laay du ma ko nangu ñàkku taali bi day leen ko seen borom kon kooku ko te xam ne sëñ Saliou bëgg na taali bi waaye nag taali bi ci yoon la koy teg hmm? waaye këppatal gii nit ñi di xew léegi këppatal ndox ko su pepp di neexal sa kër di wooteeg wilaaya wut ñu lay wala di wax sa mbaax te ngir këpp ngir ngir ngir ngir fiir nit ñi loo ko jël ci àdduna ah dafa am loolu dalaa war a doy sa këpp cër bokk fu baax ku baax yilif la ku mu doyul gisuma lay doy te ñoom ñooñu di suñuy wajur coono bu ne jànkoo nañ ko ci àdduna waaye taxul ñu ñaawal seen doxin mën ngaa nekk ci dëkk bi sa doom ëppale la sa rakk ëppale la sa taalibe bi ëppale la waaye nag muñal rek te xam ni ñaar rek am te yàlla wax na ko bu yàgg wa ma min daabatin fi fi a ardi illa a risquha ak wa ma xalaqatul jinna wal insa illa liya'budun bii sun borom dala koo gàddul bii mu gàll la ko bi mu la gàddul kay bu ci sa ne biir bi moom su su borom jox la ko lu mu lekk jaamu gii mu def def ko boo ko defee mu indi la anti prates sëñ Saliou ëpp na juma jum mais sëñ Cheikh Saliou mii nag ñaata daara leer nangam ñaanga man man nangam junni nit léegi mu jege juróom-ñaar junni juróom-ñett mais ci mujj xam dara juróom-ñaar junni nit est gis nga mu wuti fenn ab dund hmm? est-ce que gis nga mu woote laaj kenn wa maa xalaqtul jinna ba mu nekk tax jaamu ga jaamu yàlla moo tax fa la bàyyam tegoon tànk ma teg ko fa moo tax may ko lim ko may gis nga